bon li leen bëgg a dox mooy lu doy waar moo xew ci réew mi comme ni ngeen koy xamee ni ngeen ko déggee fan yi SAR société africaine de raffinage moom la coow li topp coow li nag li ko waral mooy wuruj njaaxum randal jaxase naxaate pour lekk ay milliards looloo fa xew te ñu foog ne président Macky Sall xamu ko ndax buñ demee lañ koy wax ak am du nekk benn tey loolu moo waral conférence de presse bi ni Locafrique contre état bi contre aussi bañul recapitalisation moo ñu yokk capital bi bañ gën a mën a am doole mais lu ñuy bañ mooy ñu am milliards yooyu ñu soxla fii ci suuf ci alalu saar ñu bokk jéggaani feneen dañ wuti ay milliards yoo xam ni suuf si ñu am rek nga xam ne saar moo ko moom fi mu nekk nii ëpp na téeméeri milliards fu ñuy wutee ji ay juróom benn fukki milliards nga téeméer dem nar ko lebi feneen loolu est que xel mën na ko nangu ñi wax ñu naan léegi jooni jooni ci tàng-tàng bi yow Locafrique boo fa bëggee toog te nga indi ñaar fukki milliards ak juróom benn ci tàng-tàng bi yow état du Sénégal war nga indi fanweeri milliards ak juróom-benn waaw loolu fu fan la jëm c'est ñii juróom fukki milliards ak juróom-benn am nañ ko ci ci perte ci at bi passé rek waaw bu dee da liggéey di perte juróom fukki mili milliards ak juróom-benn ci benn at yow war nañ la càmbar seet loolu nu mu mën a nekkee milliards yooyu fan la jaar mais xam nañ loolu yëpp càcc. wuruj ay njaaxum ay yu kenn xamul ba kenn xamul fu milliards yooyu nuñ ko nuñ ko yore ay bor léegi nag ñu yokk ci def benn commande ñaar téeméeri milliards gré agré gré mooy yaa neex marché yaa ma neex yow laa koy jox ci conseil d'administration bi ko waroon a approuvé yëgul Locafrique bi nga xam ni actionnaire bu am solo la ci yore lu ëpp fanweer ak ñeent ci société bi yëgul tinul kon direction SAR day xool ay xaritam ne neen bon commandé naa deux cent milliards léegi amul problème bon bu ko defee jox ko ci ay nangamu milliards commission mais affaire yi sàcc la quoi loolu nag président aussi war na ko xam donc ñi fi nekk tey ci SAR nekk luñ fi état du Sénégal nekk lu fi askan bi seen bopp ak seen poche lañ fi nekkal lool nag la Locafrique di bañ dégg ngeen temps yi yëpp coow li bëri na ba tey jii am na même benn décision bu génn tribunal boo xam ni ñoom ñooñu defkati njaaxum yooyu ñoo oon Locafrique ci tribunal ni ko yow daal li ñuy wax abus de minorité yow dañoo bëgg a bloqué yow daal yow blocage bi fi nar a nekk ci ñun dañoo bëgg yokk affaire yi yow da ngay saboté tribunal ni Locafrique li muy def yoon la ci yoon la nekk amul lu mu yàq amul loo xam ni day lor saar amul lu mu bloqué li mu leen wax xel la mooy moom nee bañu li ngeen bëgg moo yokk capital bi mais li ñu yore fii ci xaalis ci sunu suuf bu ñu ko jaayee mais loolu doy na sëkk jaru di ko jéggaane feneen kon kooku bu bloqué wul kenn kon yéen kay yéen a bëgg sàcc sàcc yi xam nañ leen léegi ñu bëggoon ñuy ubbil leen yoon bu ñu dem dugal ñeneen seen i xarit ñeneen mën a seddoo ay milliards ñeneen ndax Locafrique kat moo leen teree nelaw ndax njaaxo yi ñuy def àndu ci te moom mooy indi ay milliards fu ne di indi ay lu ay ay ay fu ne pour que société bi di dox saar di dox ay ati at moo tax saar ba léegi di dox. kooku tey ñu bëgg ko wor bëgg koo te waroon am temps yi nit ñi sax war na fekk mu am juróom fukk ak benn ci ci ci capital bi ndax loolu mooy loolu moo loolu d'accord woon mais loolu yëpp fa lañ ko teg ki la taxoon Sarr tëjul mooy Locafrique prison moom tëj na bu yàgg tey jii moo leen bëgg a ñu ko abal ñu pour indi ay Nigérian ay ñeneen ñuy dégg xam fu ñu nar a jógee mais daal seen plan bii Sénégal taxu ko jóg doomu Sénégal taxu koo jóg société bu Locafrique nekk Sénégal jàppale leen di liggéey taxu taxu leen a jóg te Locafrique ñi mi liggéeyal ba ay valeur ay cent et quelques milliards cent soixante dix milliards ñooñu seen xel a dal ñu xam ne kii ku seqal liggéeykat la waaye Sarr ni muy sabotee ni muy doxalee ci banque yi ak ci ay doxalinam ay doxalinam mais vraiment vraiment lii président lii da ngaa war a ni ay nit ñu auditer SAR bala lu ñu def benn action de recapitalisation ñu xool fu milliards yi dugg marché gré à gré bii bu ñu ko mënee annulé ñu annulé ko en tout cas du yoon muy jàll ndax maguy bu rëy rëy la en tout cas loolu la ñu bëggoon wax ndax insécurité bi juridique comme ni ko waxee c'est extrêmement grave et loolu mën a delloo Sénégal ginnaaw mën a tax ñi buggoon a jàppale. Locafrique ak SAR daw mais ñoom nañ xam ni saar moo moo géewul net SAR moo def li war a def lépp lu indi lépp luy bon lépp luy wuruj SAR la lépp luy gàllankoor SAR la SAR daal vraiment mu ngi bëgg a salte nag waaw loolu moom dund fay dee fay ndax Locafrique liggéeyul pour di sànni ay cent soixante-dix milliards ci àll bi na woor xëy na sax loolu moo tax ñu indi yëfu di def yëfu dof yi ñuy def di dof xam ni boobu ba léegi bu ñuy liggéey yàlla yàlla lok Afrique la liggéey boobu alal jooju bateau yooyu pétrole boobu tax ñoom ñuy dund lok Afrique dem na ba dugal ci cent soixante dix milliards ba léegi nag ñu ngi dof doflu mel ni lok Afrique moom mosoo leen defal dara te bu du toon lok Afrique dee nañ bu yàgg tëj nañ saa cent soixante-dix milliards yooyu am na ay avocats yu nekk Londres am na cour d'appel de Londres comme di ko waxee ni ko Seydou Diagne waxee ñoom fa la ñu war a fayee bor yi du fii loolu accord bu signé la tribunal bi ngay xam ne moom mu am compétence foofu la kon dund fay dee fay kon nañ gaa fay aussi boru jàmbur du tere nag Locafrique continuer di liggéey di leen jox bu ñàkkee jom nag ba di ko song ci tribunal du commerce gii it bu ko ñàkkal fayda bu boobaa nag Sénégal nañ xam ni ñii ñu ñàkk jom lañ président na xam ne ñi ngi ko seqal waa Sarr ñu ñàkk jom lañ sàcc lañ wurujkat lañ wurujkat lañu njaaxum luy dëgg lañuy def ba pare dem bu ko nax di ko wax dañu wax dara du ci dëgg président il faut nga ubbi sa bët looleen lay ñaan très respectueusement loolu la Afrique di ñaan look Afrique bañul ñu yokk capital bi mais sa gaa yooyu fa nekk il faut ñu càmbar li ñuy def sàcc rek lañ fa nekkee wuruj ak complot na ngeen audité seet leen balaa Londres sax di wax fii nii war ñeen a seet balaa Londres di condamné pour ñu fay cent soixante-dix milliards nañu seet fii milliards yi fu mu dugg suma gaa yi kat seen dara setul seen dara leerul président yow la ñu déglu Sénégal gi yëpp yow la ñu déglu affaire bu garaaw garaaw lañ nekk affaire Locafrique Afrique bi Sénégal yëpp a koy xool kenn mënu comprendre yëfu dof yi nga xam ne moom la Sarr di def ñëpp dinañ xanaa direction Sarr yow war a dem Fann hôpital Fann ñu seet leen mais ñi wéruñu mais yow ñu bëgg a dugal Sénégal muy perte ay milliards chaque jour nga am valeur plus de cent milliards di lebi soixante milliards tax nga bëgg a yokk wuti ay quatre cent milliards eh di génn loolu nit ñi fanweeri milliards juróom-benn état bi. ñun ñaar fukki milliards ak juróom-benn ni bu amul nga abal ma yow Locafrique yaa ngi ko yoreel cent soixante dix milliards téeméer ak juróom-ñaar fukki milliards ko ba ma joxul ñaar fukki milliards yow bala laaj kay fayal boru jàmbur yow di nga yoreel téeméeri milliards ak juróom-ñaar fa ël bu dugg naa ma ba ma joxul vingt six milliards tey da ngay able non parce que da ngaa bëgg a yeneen gan yeneen nit yoo xam ne ay Nigérian ak ñeneen ñuy tudd fu non président Macky Sall ñu lay ñaan yow yaay réew mi li xew sa réew da nga ko war a xam nga càmbar saar ci lii ñu la bëgg a dugal pour nga nangu ko da ngaa xamul nu mu demee mënoo xeex lok Afrique doomu Sénégal bu am jom bu liggéey pour Sénégal pour dimbale ñeneen ñoo xam ne sa gaa yi ñu leen indi fii non non non mënul nekk président da ngaa xamul nu mu demee rek moo tax ñu bëggoon nga xam ni mu demee ni ñu ko seqal. ah saa saay